suñu mbokk internet yi dal leen ak jàmm fi ci seen chaîne Diaspora bi TV waaw comme ni ñu koy faral di defee heure bu Sénégal amee ay événement marquant ñun waa Diaspora bi TV dinañ jot ay invité wala ñu jóg sol suñu dàll dem seeti ay kilifa yi nga xam ne ay kilifa lañ yoo xam ne heure bu ñu waxee fii ci réew mi ñëpp daal di leen di déglu ñu wax loo xam ne dina mën a gindi ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñu am lu ñu jëlee ci li nga xam ne moo xew ci réew mi boo leen gisee nag fan yi trop tension politique bi mbir mi daal daal di jaxasoo kenn xamul fu mu mën a yem moo tax tey ñu dem seeti ki nga xam ne mooy euh, kii di Moustapha Diakhaté nga xam ne kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal tonton Moustapha ñoo ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Aïda di di la nuyu di nuyu mbokk bi nga àndal sëñ Baro di nuyu waa diaspora bi TV di nuyu diaspora bi nga xam ne ñu ngi nekk bitim di ñaan Sénégal yi nga xam ne ñu ngi nuyu seetaan. yàlla may nu tawféex ba li ñu fiy ne wax nekk dëgg tam njëriñ. waaw euh, tonton Moustapha yow nag doon nga koo xam ne moom kenn du la présenté euh, dëkk bi nag euh, daal jaxasoo loolu fan yi mais nag dañuy tàmbalee ak waa F24 bi nga xam ne dañoo woote woon manifestation gannaaw bi ko préfet teree ñoom daal dinañu nangu dogal li noo jàngee loolu. waaw maa ngi félicité préfet ci matuwaay googu mu jël ndax dama jàpp ne koo xam ne Sénégal mm, ñor na la Sénégal nekk na si yitte euh, guddi yi nu génn euh, lu mu gën a tuuti fukki nit a juróom benn faatu fi ay milliards yàqu fi euh, kuréel saay-saay waroo bëgg di organiser ay manifestation ci mbedd mi waaye nag heureusement préfet jël na matuwaay yam waroon jël te jàpp naa ne même bu fekkoon ne dañuy persister dañuy def manifestation état bu Sénégal am na fulla yi kenn ku ne mu delo la sa kër bu ñu ñëw war a ñu japp la encore une fois ma je félicite particulièrement le préfet wa F24 nak moom wax deug yalla man nang <laughs> ngi boobaag léegi maa ngi leen di déglu dégguma ben yoon bu ñaawlo ñi faatu ñaawlo yàq gi ñu ala lu rew mi ñaawlu lak gi lak université nga xane lolu c'est la deuxième fois mu am Sénégal ki ko fi jëkk def moy tubab bi kon encore une fois euh, ma ngi félicite encore euh, préfet di ñaan nak tous les préfets du Sénégal ñu am fulle guddi yiñ tollu mom jàpp naa ne pépp ci réew mi benn manifestation politique war a su ko fa nangu parce que nag euh, li xew ci dëkk bi wax dëgg yàlla doy na sëkk njombe di ci dolliwaat dara moom dara jëru ko. Ah, ci loolu. waaw bala may may parce que njombe li dafa am cosaan xam nga bu ñu jékkee-jékkee di wax ci le premier le deux rek. te bàyyi cosaan la bu ñu def ndànk euh, Sénégal yi daañu fàttali xewoon parce que euh, Aïda bu kenn fàtte 2021 dafa mel ni journal bu publié woon ne usman Sonko dañ koo jiiñ viol xale bu tudd Adji saar Ousmane Sonko wax jëm ca jëkk yëkkati daa bind ci page Facebook am ni mësul dem Sweet Beauté xamul Adji Sarr ñu toog tuuti mu dindi ko ab diir ne dem naa fa man ma jàpp ne ay da booba la yëf yi waroon a jeex bu fekkonte ne Sénégal ay nit yu yu dëggu ñoo fi dëkk ay nit ñu ñeme dëgg ñoo fi nekk bu fekkonte ne Sénégal presse bu am bu dëggu presse bu ñeme dëgg moo fi nekk société civile bu dëggu classe politique bu dëggu kilifa yi diine yu dëgg yu ñeme booba la wax ji waroon na jeex ñu xam ne ginnaaw Ousmane ko fenn nit ñi ca départ ba rek am na lu muy nëbb malheureusement nit ñi jëlu jëluñu matuwaay yi ñu waroon na jël mu teg ci ba mu ne dem na fa nag mu di ko wutalu lay mais lay woo moo gën a absurde encore parce que daa jëkk ne bi ma fa demee laaj naa leen aw këyit ndax ñoom dañuy dañuy faj wala déet nee na jox nañ ko ko waxul deug parce que ñoñu mënuñu am kayit wi fañ tax duñu ay fajkat mu ne laaj na ben iliman bam ne ndax lolu dagan na maanaam góor ay gone yi jigen diko ko gënaawum gannaawam waxul dëgg benn ilimaan waxu ko mu teg ci ne dama faju won dama dama fa doon faju ji ay da cité keur goor gi Ousmane Sonko dëkk ñetti barab bu kay yi nga fa am ci boo xam ne kinésithérapie moy seen liggey mu bàyyi fa jum ñep ay guddii dem ci keur gone keur go xamne ay fa nek kon xam nga ne foofu faju yóbbu ko foofu bi ci des mooy mu ne daa ñàkk xaalis moo tax mu tànn euh, Sweet Beauté ki cabinet kinésithérapeute bi nekk cité kër góor gi dix mille francs de la séance Ousmane Sonko même bu amul xaalis assemblée nationale bi mu nekkoon député man am na xaalis or bu fekkonte ne dafa dem foofu assemblée mooy fay quatre-vingt pour cent muy huit mille moom mu fay deux mille mu jóg ci ne dañ maa complot ne Macky Sall Antoine diom sëñ Bassirou gueye ñoko ko complot ngir bañ bok ci élection yi wax joju wa Front National de Résistance ñoko ko digal ne ko mbir mi ba ci bëgge genn jiñ ko Macky Sall kon encore une fois fenn mu a wax ne fenn de mu fa te ne dem na fa fenn nit ñi ne da doon faju da amul khalis dañ ko complot loola da mo jur ñombe wi am ci Sénégal 2021 amat Sénégal 2023 kon encore gorfa feni fenni Ousmane Sonko kesse monu tegli lii nak suma ne am c'est que société euh, la classe politique sénégalaise dañu gëm manam Sénégal intéressé wu len ñom xex peut-être nguur gi fi nek rawati na opposition bi mo mo leen moo leen même ñi nga xamni ñoy ñooy nguur gi aussi japp na na jamono joji matwa yañ waro a jël jëluñu ko parce que nag dañoo bàyyi ne cel bàyyi ay journalistes yu mëna fenn ak borom xam-xam ñuy wax duggal ci bop nit ñi. ne Ousmane Sonko dañ koo complot te nag li am tu wér rek mooy lii defe naa benn prémisse moo ko mooy lu débauche maanaam mag muy caaxaan moo indi Sénégal jafe-jafe yii loolu nag encore une fois jàpp naa ne lu metti la maintenant li nga wax ci li xew keroog euh, maa ngi jaa maa ngi ñaanal ñi faatu Aïda yàlla xar leen àjjana ñi gaañu maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa mu fëgg seen bopp di leen jaari seen i bokk di masawu ñi nga xam ne seen alal da cee yàqu maintenant benn observation laa bëgg a def foofu ba ko mayee jàpp naa ne gouvernement bu Sénégal sàggan na trop ndax li am le premier waroon am te Ousmane Sonko moom avertiroon na bi mu nekk si nga ne maa ngi ñëw Ndakaaru pour cooki fin maanaam xeex bu mujj bi balaa 16 heures war na maa daane Macky Sall waaye waaye Aïda ku la ne maa ngi ñëw ngir daaneel te nga yor état war nga jël matukaay yi nga waroon a jël waroon jël matuwaay yi ñu waroon a jël en en perspective du procès pour au moins lu mel ne BRT. ak terre lu mel ne ay université les instituts publics ñu dénk ko armée mu mu aar ko su ko defee police ak gendarmerie jàkkaarloog saay-saay yi nga xam ne dañoo nekkoon ci bedd mi loolu mooy loolu aussi bokk na ci point boo xam ne maa ngi koy maa ngi koy métti euh, nga man ayda euh, mm-hmm. boo ma daan déglu musuma wax ci viol bi. parce que man jullit laa yàlla moom ko tere maanaam ñu jiiñ tuuma ju toll noonu bu ñu ko jiiñee jullit da ko koy miimal man mosuma cee nangoo wax xam nga ay di Adji Sarr moo accusé Ousmane Sonko loola mosuma cee wax nanguwuñ cee wax xam waaye Ousmane Sonko daa am lu mu nu wax la mu nu wax nag am naa sañ-sañu analyser ko la mu nu wax nag dara du ci dëgg danoo jëkk wax ne mosuma faa dem te dem te mujj na ne man dem naa fa ne dafa doon faju ji Adji Sarr ñoom duñ faj kenn damaa ñàkk xaalis. loolu loolu du lay ci député mu ne dañ ko complot te du dëgg kon encore une fois li nga xamné motax nit ñi wàcc ci mi ba faatu ba ay yà alal yàqu ci ci fenn Ousmane Sonko le jóge motax mbirum procès bi duma ci sonn maintenant liñ ko attee là aussi man ci me pose toujours la la question la plus simple gis nga moy ku bok ci état su défé dara muy justice muy administration su défé dara damay xol ba xam ndax li mu def yoon may na ko wala yoon mayu ko juge bi li mu japp ne mom du ko tudde viol da koo tuddee corruption de la jeunesse muy mag muy saay-saaye gone mag muy saay-saaye gone ma am na ñoo xam ne dama gis ñu waat kaamil ni Ousmane Sonko sequt xale bi dara ah kay juge bi nee na moom biir na ko ne Ousmane Sonko da doon xale bi xale bu amul ñaar fukki at benn nag boo tëdd ak moom tey mag loolu yoon da koy tere Sénégal yi na xamuñu ko woon Sénégal yi xamuñu ko jàpp naa bu ñu ko xamoon bu yàgg am na ñu bare ba dañ leen porter plainte kon encore une fois juge bi moom maanaam loolu seen lañ ci mëna a moy la Ousmane ne daroon faju ji moko yobbu fofa ginaaw ginnaaw daroon séeg bi kon wax dëgg yàlla daron da fen Sénégal yi faju yobbu ko fon lolou limi lañ ci mëna jangal moy bu fekkoonte da gor parce que nit ku ne mëna am as gor bu ko natou dalé da am ngorog nangu ko bu gor lu melni lolou nga yori jabar ñu nga am lo seq ak jigen bam nga jéglu say jabar Jigulu say dom lolou Ousmane Sonko waron Jigulu jégulu ay militant jégulu askan wi takki teki ndomba tangam ci Pastef dem ak yoon ba lum am jël encore fois mais defu muy wut aw lay di woo mbooloo mi ci ñu faatu ba ngir mu bañ ngir ñu bañ ko atté bañ ko condamné lolou lu ñaaw mais li ci am solo li ma sa jang rek moy malgré li mu fitna malgré ñu ci faatu la république est debout la justice est restée debout moo tax ñu atte ko ñaari yoon tëj ko ñaari yoon benn bi ci diffamation mooy fen ak yàq derul gor bi ci des mooy euh, juge bi nee na da doon njaalo ak gone gu am ñaar amul ñaar fukki at ak benn te loolu yoon da koy tere waaw man dama jàpp ne baat boobu ci boppam bokk na ci li tur lëndëm sénégalais yi ayda fekkee ay mercenaires da cee nekk waa MFDC da cee nekk nañ ko wax ay buñ ko tuddee force occulte c'est trop simple ça et daaw la ko daaw jéeg la ko woon non yow ba ba léegi war nañ la force occulte buñ ni ci la bokk bu fekkee bu fekkee moom xam na ko te jàppu leen def na lu dul yoon bu fekkente ne xamuñ ko da koo wax def na lu dul yoon en pour la gestion de la crise de, 2021 à maintenant le ministre de l'Intérieur n'a pas été à la hauteur. Si, si, si. Heureusement qu'on a des, policiers et des gendarmes d'une efficacité redoutable. Heureusement, il a le commissaire Yag, il y a un collègue Heureusement, il y a le général Moussa Fall et les gendarmes. Les politiques, notamment le ministre de l'Intérieur, n'a pas été à la hauteur.

Parce que quelqu'un qui menace de renverser un pouvoir, parce qu'en le Sénégal a échappé à un coup d'État, à une insurrection. Lola, il fallait le présenter devant un, juge d'instruction, pour pour tentative de coup d'État et insurrection. de de la liberté la ko Ousmane Sonko mën ngaa dugg baatu liberté ci ci turum ci làmmiñam il ne connaît même pas ces questions là de liberté démocratie république c'est pas du bokku ci beaucoup ci logiciel et puis nan nga ne damay def croix de la paix wala de la liberté nga ne damay dem pour renverser un pouvoir légalement et démocratiquement institué par le, par, par le suffrage universel loolu malheureusement Sénégal day rew mo jaxal parce que Sénégal ngay gis ay journalistes sax di accepter l'idée que nit warna mëna wax lu mel nonou Ce qui a garaaw bokk na ci li xew université Dakar pour la première fois dans l'histoire du Sénégal université ñu taal ko ngay gis ay universitaires continuent de jàppale Ousmane Ousmane Sonko ça veut dire que ce pays a un problème maanaam nag xëy na daa am lu ñuy wax naan way lu naqari Macky neex na ma waaye Macky Sall mu naqari ko ñu lakk université ku mu neex ku ne des nit euh, malheureusement le Sénégal dafa bari ñoo xam ne nitewuñ rawatina ci réew mi la population et les jeunes li wax la moyenne d'âge bo xaajee réew mi ñaari xaj amuñu 21 amuñu 20 ans janguñu yoruñu ñooñu buñ dajé ab saay say boo xam ne dafa bëgg jarño senum xel lu melni rek lay jur et c'est dommage. wa nañ ko doon ci tiire te ñi ko yoroon man de li ma jàpp police waroon def conférence de presse gis nga ay def démocratie politique nous avons politique nous avons. police c'est Je veux sécuriser les sénégalais C'est alal ak seenu dund Dans conférence de presse bi police devant, man mang koy ñaawul ministre de l'Intérieur, ministre de la justice ak ministre des forces armées Nous avons au pire des cas le procureur de la république mais ginnaaw c'est un problème national c'est le ministre de la justice qui waroon a ko encore une fois man jàpp naa ne du ñoom ñoo waroon a wax ci biir li ñu def nag am na ci lu ma lu ma constaté mu di erreur police wërta projeté maanaam exploité ay ay ay ay vidéo yoo xam ne authentifié wu ko ba xam lu mu doon wala mu filmeel ko boppam ñaari erreur am am na ci mooy un authentifié wuñ document bi parce que bu ñu ko docu authentifié woon du mel noonu deuxième chose euh, ñoom filmeel luñ ko seen bopp police nag wërta utiliser lo xam da ko for ci mbedd bi te xoolul ba xam lu mu doon ak lo xam euh, ak lo xam ne ko bopam kon encore une fois man d'accord ma ci sen conférence de presse bi ñu toujours est-il que je continue à apporter mon soutien total aux forces de défense et de sécurité di leen encourager encore une fois ñu gëna a pour que say say duñu yaq réew mi jàpp nga ni jël ay nit fay leen ñuy dóor seen moroom sénégalais. waaw loolu xam nga ñun waa wolof ñun wolof yi dañuy wax ne baat wolof waa baadoola du yar moroomam maanaam civil du yar civil loolu mooy principe bi pour man loolu d'accord ma ci mais Aïda buñ il faut pas qu'on nous divertisse ay nervi toj ñu berte ay nit ñu lakkuñu université. ay say say yu bokk ci Pastef ñoo ko def looloo looloy débat bi ay say say yu bokk ci Pastef ngir défendre Ousmane Sonko pour pour mu mucc ci yoon moo tak moo taal réew mi il faut pas qu'on nous divertisse il faut pas que les gens acceptent d'être divertis je constate que effectivement am nervi wu jaaduwul waaye nag Ali Kalaj ji lu bon li am ci réew mi ay ay nervi defu ko ñi ko def mooy Ousmane Sonko waa Pastef ñoo yàq BRT ñoo yàq TER ñoo taal université de Dakar ñoo lakk ay Auchan ñoo attaqué Auchan ñoo lakk ay station essence ñoo at ñoo at ñoo daj ay banque loolooy débat bi bu ñu ko fàttee parce que bu ñu duggee ci yeneen bi rek Wolof Njaay def ne ci coow bu bëree dëgg réer bu leen dimbali waa Ousmane Sonko ci loolu. Euh, ko ci mais ñoom la am yoo xam ne seen meru oh! ay Aïda li yëngu la ko yëngale ko ëpp doole mbir bu yëngu la ko yëngal ko bu li yëngal li yëngal ñooñu li may ñooñu occasion ñu wàcc mbedd mi Ousmane Sonko la fenn bu mu fenn Sénégalais yi 2021 ak yee fitna ko mu def appel à l'insurrection loolu moo indi fitna bi waaye Sénégal yi nag yàgg nañoo mer te mosoo dégg ñu lakk université Dakar Sénégal yàgg nañoo ñàkk mais mosuñoo dugg ci Auchan di ko taal parce que ko dégg avant Ousmane Sonko Sénégal du dem Auchan dem ci boutique jàmm di ko laaj kon kay wax dëgg yàlla ki indi mbir mi. kooku nag moom la ñu war a jàpp ne moom moo tax man je considère Pastef ak Ousmane Sonko comme des le Pastef d'abord comme un parti terroriste Ousmane Sonko comme un chef terroriste c'est pourquoi man li ma jàpp mooy gouvernement bu Sénégal li ko li mu war a def mooy un déclarer Pastef comme organisation terroriste Ousmane Sonko ñu jàpp ko moog waa Pastef yépp parce que Pastef amatul place ci li ci place publique bi amatul place ci république amatul place ci démocratie parce que c'est un parti terroriste et de fasciste ah man day sama kër moom bokk naa ci ñi war a saal seen kër waaye nag am na fii ab comité d'accueil bu fi nekk moom ah, <laughs> bu ñu ñëw daal nañ ko waaj nañ waajal bopp seen seen bopp bu baax a baax a baax a baax ah, am na comité d'accueil <laughs> fii moom eh, ñu ngi sant yàlla mais loolu c'est c'est le mooy important xam nga ay satu mooy la ma gëm mooy bisub dund du bisub dee li ma gëm mooy bu dee jotee ku daw ñaaw nga sama ruu gii ak sama wërsëg wi ci benn lox rek la nek mu yalla subhanahu wa taala motax man ferna am tit yalla dimbali aussi tàggat naa sama njabot bañ fer tit ñun wërna ne bu ñu waree deendoo ci benn bis bés boobu kenn mënu ci tédé kon ñom bu ñi ñi ma bolé ci liste 20 vingt personnes yi ñu wara tal seen kër bu ñuy ñëw nañ ko wacc ndax yaa comité dëkk yi daan sabab lu baax baax pour liñ bëgg bañ am te am nañ ñu ko sabab lo nak boo xoolee ba ci biir. xam nga yow yaa ngi dugg ci élément de langage et ça ça fait partie des des des erreurs monumentales que la presse sénégalaise commet tous les jours parce que Ousmane Sonko bu des complots, c'est pour dire que dañ maa bëgg a écarter ah mais Aïda Ousmane Sonko moo kan moo ko yóbbu cité si <laughs> suite beauté kan moo ko dugal ci euh, euh, euh, salle de ba mu nekk ba mu fa nekk aji saar bañ di ko joxe sarbet mu ñu naan ma nga ma lan moo ko lan moo tax mu dem ba jaxasoo Macky Sall moo ko fa yóbbu Antoine Diome moo ko fa yóbbu loolu sëñ si Gueye kenn écarté wu ko Ousmane Sonko lu ko dal moo ko teg boppam benn aw làmmiñam benn bi ak caay-caayam kon moom bu buñ ko écarté moo écarté boppam et malheureusement waa Pastef ma dama leen di yërëm à la limite même parce que wax dëgg yàlla xam naa ne sonn nañ pour taxawal parti politique muy lu jafe. waaye ab seen njiit ki njiit def njiit moomatul njiit muy guddi nuy tamaam muy làqutu buy dem di fene jabaram naan leen dama am réunion secrète du ànd ak safar du ànd ak garde dem ci ay xale yu jigéen bañ jiñ ko fa lii bu doon nus gor day jéggluy jabaram jégglu Pastef démissionné après door a dem tribunal waaye nag dus gor c'est un lâche parce que un lâche rek mooy def lu mel nii bëgg aar sa bopp ba tax nga rey doomi jàmbur te benn doomu Ousmane Sonko faatoogul ab jarbaatam faatu kennam Ben benn mbokkum ñi mbokk F24 wala FNR kenn faatoogu ci ay doomi jàmbur rek lañuy ñuy ci politique loolu ça suffit et là je lance un appel aux parents nañu téye seeni dom parce que ku ci dee Mali foro da ngay perte autopsie sa doo ab say say buy defu tay tay bañu japp bañu bañu japp ko yuuxu ko mo na dañ ma complot et c'est dommage quoi malheureusement nak Sénégal mom moy réew mo xamné boo fi wax dëgg dañ lay jéppi dañ lay mere sa Sénégal yi ku leen fenn la ñuy wër moo tax boo mënee fen moom ba accès loo bëgg mën ko fen am Sénégalais Sénégalais dañuy fenn seen bopp bëgg ku leen di fenn ñu dajeeg nag leader politique bi dàqa fenn ci histoire Sénégal muy Ousmane Sonko lu mu la wax rek boo gëstoo doo fekk dëgg li mu mos a bi mu commencé politique ba léegi loo ci gëstu rek fekk fay fenn 94 Mamour Diallo député duñ fay impôt xam naa xam naa banque bi xaalis bi nekk. xamna numéro compte ba dara du ci deug musuma dem salon de beauté dem na fa dama woppoon dara jutuko ko ngay ko ani bokku ba bak demut salon de beauté <laughs> lu tax xanaa kon wop ci da daa jek jékki wér non <laughs> saa jooju du dara aja bu mu leen na naan way dañ ma bëgg écarté mom dal bu écarté mo écarté bopam ba bu dimbali na ci ñi ko bëggoon écarté légui nak euh, ñu wax ci dialogue national bi. Hmm. no jàngatee président buy wax ñaan leen ma mandat ma may leen ko. Euh, te constitution bi wax ne nul ne peut faire deux mandats consécutifs. waaw xam nga man yàlla dogal na xam naa tu naa tuuti Macky Sall quand même je le euh, kaf waaye nag la mu doon kafe kenn du ko kafe fam ko doon kafe kenn du fa kaf man xam naa ko da doon kaf waaye nag la mu doon kafe kenn du ko kafe fam ko doon kafe kenn du ko kafe kenn du fa kaf benn. su fekkee daa jàpp ne constitution may na ko mu war a bokk kenn du ko ñaan ne ko bàyyil fekkee daa war a bokk jàpp ne constitution may na ko kenn du ko ko ñaan parce que nit dis ko ñaan lu ko constitution may du dëgg ce qui waru ko am kenn du ko ko ñaan parce que bu constitution bi tere kenn waru ko def du dëgg solennité daje ba wur sax wuru ci woon sax prononcé daa war a wax voulez discuter troisième de ma candidature allez-vous en débattre dans le dialogue au min au maximum loolu mën a wax am kon jàpp naa sax loolu waru koo wax encore une fois, vraiment, je, je déplore cela, mais je sais que de café, mes femmes donnent café. Ken wuru fa café, lam donne café, ken du café. Voilà. Euh, Bataille Sonko, mon résident surveillé, le juge lui décidé ou quoi ah, loolu administration am na ci loolu administration euh, bu ko gi Ousmane Sonko teg Sénégal ay fenam fukki nit ak 2021 ay fenam fukki nit bëkk de muy fanweeri nit mu c'est c'est l'homme politique le plus criminel du Sénégal Yaki milliards kon comme mel nous tëj ko c'est une mesure de sécurité mais li ma jàpp nag mooy bañ ko jëlee jàpp ko ci yoon dire dañ ko war juge d'instruction doyen du juge d'instruction wala un juge mu inculpe ko de d'attentat à la sûreté nationale de tentative de coup d'état et d'appel à l'insurrection ñu fàtte ko fa pendant cinq ans door a def door ko door ko jugé première chose deuxième chose japp na ne gouvernement bu Sénégal bu jëlon matuwaay yi waroon a jël ci jamono yi ko waroon a jël ak Ousmane Sonko kon yëf yi du ci fi parce que nak mujj na Sénégal japp ne Ousmane Sonko dafa état ko ragal ñu nan Macky Sall dafa ragal Ousmane Sonko Macky Sall numuy ragal ragale koo yow du ab civil ñu jox le chef suprême des armées jox la armée jox la gendarmerie jox la police jox la justice ne la yoro réew mi aaral ngay ragal lolu <laughs> mënut ta nek kon encore une fois vraiment Euh, bu leen dugg ji kenn kenn bëgg ko écarté moom moo def toj toj péccam ba mbir ba musiba daal ko ci rek. waaw euh, ñu coupé internet bi ci seen coobare teg si dagg signal Walf TV nar a ay pères famille seen liggéey loolu nga yaakaar ni du dictature. waaw tëj tëj internet yow yaa bi nga juddoo ba léegi yow bi internet ñëwee Sénégal ba léegi yaa yaa est-ce que mas nañ koo tëj ne déet neel déet Sénégal yi dégg ne nee nga déet mbir bu amee rek daam lu ko taram loolu lépp. conséquence bu feni Ousmane Sonko yi ak fitna ji mu indi ci réew mi moo tax état nag dafa yor sécurité état ni mu yore police ak gendarmerie yore ni armée yore ni justice pour aar sénégalais yi la yore nag baat pour bu fekkente ne am na loo xam ne nit ñi dañ fay jaar pour indi musiba nag ñu tëj ko internet bi tëjuñu ko parce que état bi da ko bëgg a tëj def koo tëj pour sécuriser sénégalais yi yow imagine ñi ñoo xam ne euh, tuyau ndox bi nga xam ne mooy jox Ndakaar euh, ndox ñu bëgg koo exploser nga gis ay nit yu nekk ci sociaux yi naan dem leen taal kër diw dem leen barab sàngam jaarleen leen barab sàngam état bi bàyyi woon internet bi mu continuer son attitude serait criminelle c'est pourquoi moi je félicite les autorités d'avoir suspendu internet maintenant pour Walfadjri moom man li ma jàpp mooy ay coupé signal signal dañ ko war a weesu Walfadjri dañu war a retirer licence biñ ko jox muy rajo ya ak télé ba parce que Walfadjri est devenu un groupe de médias de mille collines buñ ko bàyyee dana taal réew mi loolu laa gëm. askan ah, ah, wi kay rajo lëndëm la rajo la ay fe ay la fa nekk sax nag malaa li mu nekk suñu ay ay fenkat ay soskat. ay ay yéekatu fitna fa nekk Walfadjri amatul place ci espace médiatique bi Walfadjri day violé bés bu yàlla sàkk xam nga booy boo bëggee télé da ngay ak rajo da am da am cahier de charge cahier boobu de charge bu ministère bi jëru muy son na woo Walfadjri rek ñu liir ko lañ si woon ne daañ ko def na leen woo ñu liir ko bu boobaa ministère bi bopp mooy retirer licence bi mu jeex tàkk nag c'est di nekk fi naan leen dañuy retirer dañuy suspendre ay licence un de faiblesse c'est manque de courage politique vraiment j'invite le président de la République à, instruire le ministre wala bog le ou la structure du ko yor retirer à Walfadjri sa licence que nous cesse d'être un groupe de presse Ce boobaa nag bu ñu bu ñu demee feneen ñu fekk leen parce que Walfadjri moom est devenu un danger il n'informe plus il manipule voilà voilà daal man moom laa moom laa fa moom ci mbir bari némé ci manifestation yi loolu gi rek ay la cause principale mooy fenn wi Ousmane mi dañ bëgg complot babel du ma ci élection yi waaye sëñ bi loolu jaratul muy parce que nag moom daa bëggoon utiliser justice ba kenn du ko utiliser euh, pardon daa mi ba kenn du ko utiliser mbedd mi ba kenn du ko du kenn du ko att kenn du ko daan état bu Sénégal nag taxaw na nam war a taxawee ba àtte nañ ko ñaari yoon jugé ko ñaari yoon bokkum bokkum élection ci Ousmane Sonko moom loolu féet na boor. scène euh, de pillage yi ani noo koy jàngatee ak gouvernement bi nga xam ne dañuy bàkkoo ay taux de croissance bu baax bu yokkute amoon nga foog ni manifestation, Oui, c'est vrai, il y, a, il y, a la pauvreté, mais il faut chercher, il faut pas légitimer. Non, non, non. Ah ben non, mais il faut pas légitimer par, parce que nous sommes ñak motax ñu def li lool suñ ko défé dañuy daganal ciacc dañuy daganal yak alalu jambour loolu bu ko kenn xalaat dégg naa benn politicien irresponsable naan xale yi dañ leen a war a yërëm waaye waree su leen a yedd il est irresponsable parce que bu ñu yàqoon alalam du wax loolu et nga mën a bëggee ne da ngaa bëgg yor réew mi di jëm te ñemewu sax wax dëgg di fen naan xale yi dañ leen war a dañ a yërëm wara su leen a yedd ah kay dañ leen di yërëm di leen yedd liñ def lu bon la man bu fekkonte ne Ousmane Sonko combat politique bu ko jar la ay ay de bu ko fàtte ay caaxaan la doon defi suite beauté ba ba bañ bañ feeñal ko mu bëgg utiliser xale yi bakkanu xale yi ngir mucc ci yoon loolu mooy loolu mooy alikalag gi ay xale yàq nañ xale yàq nañ d'accord mais xale yi bu ñu yàqee ki leen ki leen tax ñu yàq bet mooy saay-saay bi Ousmane Sonko pour man ndeyu mbir li ji Ousmane Sonko la principalement am te kon nag xale bi yàq parce que nag euh, du ñu ay dof ah yoon war naa dal seen kaw et là j'invite particulièrement la justice ñi ñu jàpp ci manifestation bi la justice doit ferme et implacable avec ñoom parce que nag lii mënta wéy ñuy ñu impôt Sénégal yi ñu defar réew mi nit ñi ay nit di yor seen entreprise bopp ay saay-saay parce que dañuy soutenir nitu politique wala parce que dañoo bëgg am te ñoo sonn nanguwuñoo liggéey di di di di yàq seen alal wala ñu ko sàcc. Euh, léegi suñu question bu mujj wax sénégalais jàmm di dëgg koy lal. senegal buñ defu ndank jamm dana fi yeexa am te bu amé du fi yag parce que jamm deug mo koy lal. nekk plaisir bu ñuy ñëw à chaque fois di la seet di la remercier aussi ci sa disponibilité. waaw man la war a tax man damay bok dama sasoo bëgg di wax sénégalais yi dëgg gu leen di jëriñ kon kuma ma joxum micro rek man ngay dimbali ah wax dëgg gu jëriñ sénégalais nak mom xamna xam naa lu <laughs> luy luy tàng jër lay ndax nit ñi mom kulen fen fen fenn mu leen neex moo len gëna kulen di wax dëggu ñe dëggu len di jëriñ waye nak man dama gëm li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nit jullit du fen moo du ma fen lu wax de deug le do yalla na dëgg dëppoo mu ndekk jëriñu askan te nak deug moy depp day day mom ko nak ba ma ngi len di remercier ba ci dikk gi di len remercier ci laaj yi nga laaj ak di bu fekke lima tontu baxna ñu sant ko subhanahu wa taala bu fekke ci ne deug na ma ngi jégalu merci beaucoup